بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر قال المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءوا
barakallahu fikum suñu boroom jalla wa ala mu ne bismillahi rahmani rahim alif lam mim sad yàlla xam lan la ca jublu kitaabun unzila ilayk lii de téere la bu ñu wàcce ci yow fala yakun fi sadrika harajun minhu bu mu nekk mu ko ci sa dënn bi benn xat-xat ci loolu li tunzira bihi ba ngay nekk di ci xuppaate wa zikra lil mu'minin yàlla def na ko fàttali ñeel ñi gëm ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ey yéen ñi gëm topp leen lañu wàcce jëme ci yéen bawoo ci seen boroom wala tattabi'u min dunihi awliya te bu leen topp gannaaw loolu a ñenn ñu ngeen di féetewoo qalilan ma tazakkarun aka néew li ngeen di fàttaliku wa kam min qaryatin ahlaknaha moo ana ñaati cay dëkk yoo xam ne alag nañu leen fa jaaha ba'suna bayatan aw hum qaa'iluun mu dikkal leen sunu ay wax ca la nga xamee ne nii mooy ca guddi wala jamono dañuy nekk di ko sieste fa ma kaana da'waahum ñu ngi noonu sieste mooy nelaw yi ñuy nelaw ca ngoon ca njolloor fa ma kaana da'waahum lan moo nekkoon seen woote ga is jaa'ahum ba'suna bam leen dikkal suñu aywa suñu mbugal ma illa an qaalu inna kunna zalimin lu dul ne dañu nekkoon naan ay waay ñun nekkoon nañ ay tooñkat fala nas'alanna lazina ursila ilayhim ñun day daañ laaj ña nga xam ne dañ ñoo yónni woon ca ñoom wala nas'alanna al mursalin daañ laajit ña nga xam ne dañ leen a yónni woon fala naqussanna alayhim bi ilm daañ leen nettali ci seen kaw ci xam-xam wa ma kunna ghaibin ndax ñun day nekkuñu woon ñoo xam ne dañuy wuute lenn luñ doon def mbokk kon la nga xam ne moom mooy basmala borom xam-xam yi ëpp dañ ni bokkul ci benn soor léegi-léegi nag moo bu sa tànk guddee da nga gis koo xam ne bu lay jiite amul saar bu muy tari lu dul dana wax bismillahi rahmaani rahim ndax lañ jàpp ne ñoom daa bokk ca saar yëpp ala kulli hal kaddu gu mag la mooy maa ngi tàmbale tey dimbini ko ci yàlla mi yir mboole mi jaam ci yërmandeem di jagleel ña ko ca gëm yërmande bu amul fu mu yem suñu borom ni mu ko ubbee it ci ah, alif lam mim sad la gën a mucc ayib gannaaw ba ci borom xam-xam yi waxee lu fanweeri wax la gën a mucc ayib mooy yàlla xam lu mu ci jublu xamal ne daal heure boo waxee alif lam mim sad am nga 40 tuyaaba mi nga noonu am nga 40 tuyaaba borom boobu nag subhanahu wa taala ne lii de ab téere la ma ko yor Qur'an ab téere la bu ñu wàcce ci yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci yow laa ko wàcce noonu ko yàlla wàcce ci moom muy wane ne moom dong moo am droit ci jàngale ne nii la ko yàlla bëggee boo xoolee ca aay bi ci topp suñu borom mu ne ittabi'u ma unzila ilaykum ay topp leen yàlla wàcc ci yéen julit ñi kon yàlla nga ko jaarale ci yonent bi mu jëm ci julit ñi muy wane ne julit nañu mënuñoo xam téereb yàlla bi lu dul dañuy dellu ci yonent yàlla bi loolu ñu bàyyi ci xel bu baax maa ko wàcc ci yow bul am benn xat-xat ci waaraati ci ca mbokk julit xoolal yonent yàlla bi ñëw màkka ñépp di bokkaale kaabe gi trois cent et quelques xërëm yàlla na ko jógal nga wax sa bàyyi sa nijaay yi ak kilifay dëkk bi ne leen lii lépp ak neen la yàlla kenn la gaa yi loolu yomb naa waay yombul de gis ngeen sa borom nag na ko bu ci am benn xat-xat jógal rek wax gis nga moo tax yonent yàlla Muusa ba ko yàlla ma see sant lu mel noonu bokk na lu mu wax rabbi shrah li sadri yàlla yàlla nga yaatal suma dënn ba loolu ma man koo attan suñu borom mu ne def naa ko zikra lil mu'minin mbokk alquran mi ngi nii moom mooy fàttali julit bi nekk ca palais de justice lan la yàlla wax ci atteem ka nekk ca marché ba lu yàlla wax ci commerçant ka nekk ci liggéeyam lu wàlla wax ak employé am ki nekk ci sëy bi nu yàlla lijjantee sëy bi ci ñuy war a miraas nu yàlla waxe miraas bi loolu lépp alquran zikra la lil muminin borom bi nag mu ne ay yéen julit ñi ittabi'u topp leen li ñu wàccee mu jóge mu wàcce ci yéen mu jóge ci seen borom mbokk alquran yi ngi nii jàng ko day baax na lool waaye du loolu moo taxoon yàlla indi ko ci ñun yàlla da ko indi woon ngir ñu topp ko ittabi'u topp leen la nga xam ne moom la yàlla wàcce mu jóge ci seen borom mbokk borom bi nee na ndax ki bind xamul na am appareil boo mën a gis ci kaw suuf ka ka gën a xam mooy ka ko créer looloo tax ku créer appareil am da koy booleeg notice suñu borom nag moo ñu bind moo ñu xam mu ne topp leen li jóge ci seen borom ca ngallaawaay bu leen topp gannaaw yàlla ku ngeen di féetewoo ak a néew li ngeen di xalaat ca mbokk jullit bépp ndigal boo xam ne daa jóge ci ab jaam safaanu ndigalu yàlla suñu borom mu ne bu ko topp la taa'ati li maxluuq fi ma'siyatil khaliq que ça soit toi le militaire yow doom yow soxna yow employé yow kum mën a doon xamal ne da ngaa war a topp ñooñee ma lim di say kilifa fii ak santuñu la lu yàlla araamal fii ak terewuñ la lu yàlla farataal képp ku la mën a digal lu yàlla araamal wala mu tere la lu yàlla farataal du ndey du doom du président du général du directeur de service du kum mën a doon koo xam ne jurit de da koy topp loolu ñu bàyyi ci bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ne ak néew lu doomu aadama yi di fàttaliku ko waaye buñ doon fàttaliku ko daañu xam ne day an ana ñaata dëkk yoo xamee ni nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala alagoon na leen ñaata dëkk yoo xam ne suñu borom yàlla alag na leen ca ba mu leen di dikkal mbugulu yàlla da leen a bett mi ngi noonu mbokk julit jamono bi yàlla di wax ak yonent yàlla bi ku ne xam na ne xawmu nuux jaar nañ fi xawmu huud jaar nañ fi ay yeneen jaar nañ fi amma suñu borom yàlla it du deñ di wane doomu aadama yi ay nattu di leen dal fuñ ko foogewul woon bokk ni ci gën a siiw suñu jamono yi ñuy dund lay xewoon ca Amérique en 2001 dëkk bi ëpp sécurité ci kaw suuf yalla subhanahu wa ta'ala benn bëccëg indi mbugal bëccëg door ko seen kaw plus de 3000 morts mu la loolu la xewoon fële ci indonésie tsunami benn bëccëg suñu borom yalla jalla wa ala indi benn géejam yëkkati ko 300000 morts loolee mbokk da ngay gis ni suñu borom yalla nag mu ne ndax doomu aadama yi am nañu kuulu tegu mel noonu ña nga xam ne dañu fee jiitu woon day ba ma demee ba daal di leen di mbugal seen woote ba nekkul woon lu dul ñu naan ay way ñun day nekkoon nañ di aji tooñ kese nekkoon nañ di aji tooñ kese lan lañ doon rëcc mooy tooñ gañ tooñoon borom bi jàll wa ala bàyyi loolu daal di wane nag ne yoomal qiyam mi ngi ñëw mboolem koo xam ne yàlla mas naa yónni ci yow yonent yalla dana la laaj lan nga tonte won yonent yalla bi loolu mbokk ñun ñëpp ñu war ko waaja- waajal maaza ajabtumul mursalin lan ngeen topp yonent yalla bi lan ngeen tontu yonent yalla bi lan ngeen tontu yonent yalla bi borom boobu subhanahu wa taala mu ni dana laaj yonent yalla bi ndax jottili woon na yow mi nga xam ne da nga am xel gal la waay xamal ne yowmal qiyama duñ la laaj abubakar duñ la laaj imaamu malik duñ la laaj shafii kiñ lay laaj mooy yonenti yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yow bi yonenti yàlla muhammad woote nan nga ko wuyoo yonenti yàlla bi yàlla dana ko laaj ndax jottali nga mu ne naam jottali naa borom bi nag ne gannaaw ba danaa leen nettali ñoom ñëpp lañ defoon yonenti yi jottali woon yàlla dana leen dëggal ñama yoon yonenti yàlla yi it dañuy gis ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana doon koo xamee ne nii dana leen wax lépp loo xam ne nii defoon nañ ko loolu mbokk kon borom bi mu ne man wuutewuma dara na am wuutewuma dara lu ñu ubbee suñu dars bi léegi yonent bi alayhi salaam nee na mbooloo ma toog ca jàkka ja yàlla ngi naan malaaka ya kawe xool leen sama jaam yee génn nañu seeni kër ña nga daje sama néeg di jàng sama téere loolee mbokk de yal na yàlla nangul ñu ko waaye ñee nekk ca baar ba it ah yàlla ngi leen di seetaan de ñee nekk ca réunion ba yàlla ngi leen di seetaan de doomu aadama foo mën a nekk suñu borom mu ne ma kunna ghaibin yàlla du wuute dara doomu aadama lu nekk da nga ko wuute ak la nga mën a fekke amma suñu borom mooy ka nga xam ne du wuute dara ci lu ay jaamam di def te nee na yowmal qiyama dana leen ko nettali ñu ngi koy ñaan moom ci njéggalam ak yërmandeem yal nañu yàlla dëppale ak ngërëmam keroog bam ñuy atte yal nañu atte ci ngërëmam defal ñu afiye fi dunya wal akhira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in fi képp koo xam ne jaar na ci yoon boobu ba yàlla dogal mu tabbi aljanna da ngay gis ne dana sant boromam def na la ko war ka fa bàyyi yoonu yàlla nag daal di jaar beneen yoon ba tabbi sawara bu du du du du du yedd kudul boppam ala kulli haal suñu borom nee na danaa tab danaa feesal sawara ci ay nit ak i jinni waaye nag du ko du ko feesal te la nga xame ni nii mooy lu muy dogal rek jeex na waaye képp ku fa dem la nga xamee ne yaa la tax nga dem fa yaa koy faggu doog fa dugg mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ah bismillah na na waaw waaw waaw yonent yàlla ibrahima suñu borom mu ne musul bokkaale bi muy wax ak xeetam naan leen haza rabbi booba da leen doon woo ci li ñuy munazara indi seen xel parce que bëggoon nañ ñu déglu ko te nanguwuñ koo déglu moo tax comme la ëppoon ñoom dañu doon jaamu jant bi jant bi fenk mu naa sama borom a ngi nii gars yi kontaan na ñoog ibrahima ñoo bokk borom ba jant ba soo mu ne ah lii kon sonn lii du yàlla de kon kii du sama yàlla gis ngeen loolu la wax ci bidéo wax ca nangam waaye mbokk ibrahima nan lay dunde ba nekk yonent ca xamul ne jant day so xel mun ta nangu loolu ca xamul ne weer day so xel mun ta nangu loolu kon da doon woo seen xel ci nga xam ne lii dafa am ku koy manipuler loo xam ne day fenk di suux di fenk di suux am na lu koy manipuler te yéen tamit ndaw ñi ngeen bàyyi ci xel de tubaab bi li muy jaamu mooy hasard ñu ngi noonu waaye du hasard de weer bi jant bi gis muy fenk ko suux weer bi fenk ko suux biddi yi fenk ko suux dafa am borom bu koy organiser am déet muy cycle boo xam ne du changer chaque année yàlla wutal na leen yoon bu ñuy jaar muy recommencer te mboo ko hasard du recommencer wu loolee ñu bàyyi ci xel bu baax kon ibrahima da leen doon woo woo seen xel waaye la chaque ne ibrahima xamoon na ne ab jant bu fenkee day suux wallahu subhanahu wa taala aalam waaw naam bismillah naam waaleykum assalam wa rahmatullah waaw inchallah barakallah fiikum barakallah fi vraiment xalaat la euh, yu am solo waaw yal na yàlla subhanahu wa taala jëriñ ñu ci- jëriñ ñu ci ñun ñëpp waa ko kon mi ngi noonu yal na yàlla defal ñu afiye fi dunya wal axira lépp luy barkeb alquran yal na yàlla wàcc ko suñu dund wàcc ko heure bu ñuy daje ak moom wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain barakallahu fikum